alhamdulilah yaakaar naa muqaddima bi nga ubbee ak li docteur wax daanaka tënk na wax ji wax tawxid naam tënk na wax ji daanaka ci ci anam boo xam ni maanaam aaya boobu rek indi na lépp hmm. aaya boobu cosaan la ci bunt bi hmm. qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un hmm. la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum koku tënk na li ñuy waxtaane ci bunt bi moo tax borom xam-xam yi dugal ci eh, nawaqidul iman nawaqidul islam al istihza'u billahi wa bi rasulihi soofantal yàlla ak yonente bi woyefal leen ak doyadal leen stigmatiser leen dañ kaa dugal ci buntu boobu mooy yi nga xam ne buntu yi firi ngëm yi firi ak lislaamu nit ki yoo xam ne boo ko defee sa lislaam toj na maanaam da lay génne ci lislaam da nga koo café da nga cee dëgg da ngay génne ci lislaam xam nga li am solo mooy nit ñi fii dafa am ay aada yuñ topp ak ay njuumte yu rëy rëy yoo xam ne ni ñuy dundee ci seen wàllu àdduna sociologie bi ñuy dundee moo leen ko imposé mais diine moom al ilmu qabla al qawli balaa ngay fas dara ak balaa ngay wax dara li ngay waxal na nga ko am xam-xam na nga ci am xam-xam li ngay wax rawatina ci lépp nag. mais diine diine ci la gën a yàlla. aduna sax boo ci wax li ngay wax na nga ci am xam-xam. ولا تخف ما ليس لك به علم طيب بروم بيقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يلا كان دي وقت مملو أمو الخمخم الله te fii Sénégal nag nii dañ ko aadoo dañuy wax ci yàlla lu amul xam-xam da ngay dégg terme bu reetaanlu nit ñi naan maam yàlla di ko di ko ko fooyee di ko waxtaane ko lu lu wax ju garaaw la kàddu googu yellul ci borom bi subhanahu wa taala parce que borom bi mu tuddeewul boppam kenn du ko tuddee te bokkul ci li mu tuddee boppam maam ko nafe lam yeed wala mu yónat waaw boo waxee mu xëy nit mën na laa wax ni non jubluwuñ ci maam dëggantaan parce que maam mooy ku am njaboot moom amul njaboot xam nañ ko waaye dañ koy wax nii sa jaawusal mais xam nga jafe-jafe bi nit ñi am fii mooy da ngay gis nit nekk ci dara amulu ko tegtal lay gëm ba pare di wut ay lay nit ki day day gëm ba pare mhm. léegi gëm ba pare di jéem a wut di jéem a wut looy layal déedéet ne déedéet mbir mi di noonu yow dangaa war a xaar ba am tegtal bu la wax defal tegtal bu la wax gëmal tegtal bu la wax bàyyil nga jàpp ci mhm. amoo tegtal toogal jàpp sa jàmm mhm. moo tax borom xam-xam yi wax ci yàlla loo xamul ci bàkkaar yu mag ci lañ ko boole te yàlla ko wax ci aaya bi suratul araf wa an taqulu allahi ma la taalamun beneen bi mooy foog ñu xam ne yàlla moo gën a xam boppam ñëpp yàlla moom moo gën a xam boppam ñëpp moo gën a maîtriser boppam ñëpp léegi yàlla boo ciy wax kon comme moo gën a maîtriser boppam ñëpp li ngay wax na fekk moo la ko waxloo ci moom li aju ci moom moo la ko waxloo bu la ko waxloowul na fekk ki gën a xam yàlla ñëpp ñi yàlla bind ci kaw suuf ñi jiitoog ñi mujj ki gën a xam yàlla ñëpp yàlla xamal ko ci moom lu mu xamalul kenn ku dul moom mu yonente bi alayhi salaam na fekk li ngay wax ci yàlla ci moom nga ko jëlee ñaar yi bu ko nit ñi toppoon ñaar yi mooy looy wax ci yàlla da koy jëlee ci yàlla ci boppam moom mi xam boppam wala yàlla ki nga xam ne la gën a xamal ci jaam yi kon doo réer mais li ëpp ci nit ñi duñ jëlee foofu lu ñuy wax ci borom bi subhanahu wa taala su ko defee nag il faut ñu nangu ne yàlla moom dafa màgg ñu màggal ko màgg na ñu bañ koo màggal màgg na li docteur doon wax léegi moom màggam màggaayam li zaatihi la moom màggaayam dafa aju ci jëmmam keneen ku dul yàlla foog ñu màggal la nga door màgg yàlla nag même bu ko màggalul màgg na mais keneen ku dul yàlla pour nga màgg yow ay nit a lay màggal wala am groupe wala mbooloo mu fi nekk di la màggal pour nga door a màgg mais suñu borom moom màgge moom dafa nekk loo xam ne lu tax ak moom la moom dafa màgg ci jëmmi boppam mu doon melokaanam doon turam kon loolu lu mat a bàyyi xel la loolu moo tax Ibnul Qayyim wax wax ju am solo Cheikh Abdul Karim Zeydan indi ko ci usulu daawa jële ko ci moom ci alfawaid mu ne daawa lislaam yi woote lislaam yëpp bu la neexul nga tënk ko ci ñetti rakaïs bu njëkk bi mooy ad daawa ila tawxid al xaalis diine dafa ñëw ci woote wéetal yàlla gu set wecc gu raxul boo xam dafa set wecc raxul dara nangu ne suñu borom kenn la yàlla kenn la ci ay melokanam kenn la ci ay turam kenn la ci nguuram jaamu giñ koy jaamu dañ ko ci kennal mom borom bi subhanahu wa taala nangu ne sunu borom kenn la ci xam-xamam kenn xamul lim xam kenn la ci sañ-sañam kenn sañu limu sañ kenn la ci mën-mënam kenn mënul lim mën loolu fokk jaam bi daal di koy nangu koku moy at tawhidul khalis nangu ne yàlla amul dom amul morom amul ndend amul mas kenn sañul li mu sañ kenn mënul lu mën liñ koy defal duñ ko defal kenn ku dul moom borom bi subhaanahu wa taala kooku mooy ad daawa ila tawxidul xaalis ñaareel bi ad daawa ila al imaani saadiq mooy woo nit ñi ci ngëm yàlla gu dëgg gu sérieux gu wér goo xam ne li ñuy gëm duñ ko jëlee ci gént duñ ko jëlee ci xalaat duñ ko jëlee ci ay manaamaat duñ ko jëlee ci kasf duñ ko jëlee ci ay zawx waaye day fekk ne tegtal la parce que xam nga gëm dafa sensible hmm. li ngay gëm yàlla moo la koy gëmloo li ngay weddi yàlla moo la koy weddiloo moo ko yonentam hmm. mais nit ñi fi dañoo jàpp ne ngëm am nga liberté gëm lu ma neex weddi lu ma neex alors que ngëm moom li ngay gëm ci diine yàlla la koy gëmloo ak yonentam li ngay weddi ñoo la koy weddiloo soo gëmee lu la yàlla digalul ak yonent bi di nga gëm loo warul gëm sooy weddi lu la neex te jële woo ko ci yàlla ak yonent mën ngaa weddi sax lu diine saxal far moo tax wàllu ngëm nekk lu xassaas maanaam lu sensible lool moo nit ki na xool ngëmam fan la koy jëlee ci diine loolu moo tax addaawa ilal imaani saadiq kon woo nit ñi ci ngëm yàlla gu dëgg ngëm yàlla gu dëgg nag moom borombe rombee ak sunu deggotul pour mu nek ngëm yàlla gu dëggu sadiq day fekk ne yalla ko digle yonenti be ko digle lo gëm lul yalla digle wul yonenti bi digle ko jógewul ci ñoom mënta nek iman sadiq ñettel bi moy ad dawa ila al amali saliha mooy woo nit ñi ci jëf yu bax jëf yu bax moy jaamu yàlla yek jikko yi neena ñett yi moy raka'izud da'wa al islamiyya ñett yi manam wota l'islam ci la fondew yonenti bi ci la di la don liggey ay saxaabam ci la don liggey ñi fi jaar ci don liggey yar nañ ci tawhid gu sel woo ngëm yàlla gu wér ak jëf yu bax jëf yu baax léegi nag loolu pour mën a am mooy jaamu ya euh, euh, euh, tawxid bu wér bi day jóge ci yàlla ak bi ngëm yàlla gu wér gi day jóge ci yàlla ak bi jëf yu baax yi day ci yàlla ak bi su ko defee nit ki door a mën a nekk koo xam ni nekk na nit koo xam ne ku gëm ngëm yàllaam normal la wéetal yàllaam wér na mais ay jëfam wér na mais xam nga sunu borom dafa xam doomu aadama kon sunu borom junñu na loolu ci alquran ci suratu zumar wa ma qadarullah xaq qadarihi nit ñi joxuñu yàlla dëgg-dëgg daye ñu ko war a jox yàlla day biñ ko wara jox deug deug joxuñu ko ko legi nit ñi fokk ñu xamni suñu borom subhanahu wa taala màggaay ci mom la jexé màggaay ci mom la yem legi kenn ci doomu adama yi mënuñu ko takal garat buñ takal yàlla yàlla duñ ko duñ ko tollaleeg malaka duñ ko tollaleeg yonent waxuma lak leneen te mbinda foo ni ñaar yi ñoo fété kaw mo yonent yi ak malaika yi ci mbinda foo ni léegi bu fekke yoy yi gëna a yàlla du seen moroom du seen tollawun ak moom te yàlla waxal boppam ci boppam boppam ci alquran ni hmm. walam amul kufu loolu kufu wa mutlaq la yàlla tollawut ak nit ci dara mbooleem kaanam yi cheikh bi doon wax léegi nga xam ne si yëpp ay sifaat kamal la si hmm. maanaam si si ay yu mat sëkk la hmm. suñu borom subhanahu wa taala rek rek moo ca mat le même yi mu dëppoog doomu aadama yi ci wàllu tur nga xam ne moom la wax léegi borom xam-xam yi di ko tënk ci al qaidatu al musharakatu fi l la taani al musharaka fi l xaqiqa tekkiwul bop depo ci ci ci ci ci melokaan ba tay boo ne nit amna na bopp mbaam am na bopp yëpp bopp la waaye ku na xam ne nit ak mbaam du benn boo ne yow am na nit amna na bopp yo yow bopp yow bopp nit du benn loolu ku ne xam na ko waaye ñoo dëppoo ci tur bi mm-hmm. léegi suñu borom même melokaan yi nga xam ne nit da koo am ñu ci suñu borom son taala melu koog doomu aadama dinaa la jox misaal rek mm-hmm. tey buñ ne suñu borom buur la mm-hmm. tur buñ koy jox la suñu borom buur la mooy buuru ñëpp mooy rabbul alamin waaye doomu aadama nit dana nekk buur waaye comparel ñaari nguur yi nguur yàlla amul commencement amul fin du jeex nguur yàlla amul opposant nguur yàlla kenn du ko coup d'état nguur yàlla du jeex yàlla du absenté ci nguuram léegi keneen ku dul yàlla sa nguur judduwaale woo ko daa am jamono nekkoo woon buur jamono ñëw nga nekk buur jamono day ñëw nguur gi jeex sa nguur mën nañ la coup d'état sa nguur mën nañ la coup d'état siège bi nga siège bi nga nekk te toog fa yaay buur ñu bëree ci bëgg a jot yàlla nguuram kenn kenn mënu ko mënu koo jot te kenn du ko jéemit nag da caa wéet kon nga déggee ci ne kon yàlla melokaanam yi mën na cee dëppoog ni ci tur waaye dëgg-dëgg xaqiiqa bi melokaan bi dëgg-dëgg loola li koy départage dafa bëri mhm. loolu moo tax yàlla ginnaaw bi mu nekkee yàlla leneen mënu ko doon buntug yàlla jeex na yàlla subhaanahu wa taala kese moo ko mën a nekk moom rek moo koy nekk ba faw buntu la boo xam ne du ubbeeku amul mbindaa foo lu ko mën a doon du nit du jinne du malaaka du leneen loolu moo tax yàlla yàlla lu mën naa nekk jéem a doon yàlla mais nekk yàlla mënatul nekk loolu moo tax mu tënk ko ci saar yi qul huwa allahu ahad allahu samad yooyu mooy tax dara mën a nekk yàlla te ci moom la daje mooy pour nga nekk yàlla da ngay fexe ba doon kenn asamad ñëpp soxlaal la doo soxlaal kenn fii yàlla rek moo fi soxlaalul kenn ku dul yàlla garaat bu ñu la mënta jox soxlaal nga soxla nga doomu aadama yi am nga ci ñoom soxla jur nga wala dañ laa jur jur nga boo jurul it yow jur nañ la moom mën ngaa bañ a am doom gaa ngir ay ay sabab mais jur nañ la sunu borom kenn juru ko léegi yow am nga moroom bokk na ci kàddu yi ñu doon wax sax nga xam ni ñu dañ koy wax mu doon ay kalimaat kàddu yu garaaw léegoo lee sa nga dégg ñu ne diw amul moroom kooku wax ju yàqu la ki fi amul morom kenn la mooy borom bi sontaan leen dul am nga morom ci dara nga bañ ko nga nangu ko am nga morom ci dara mais ki amul morom mutlaqan mooy suñu borom subhanahu wa taala mais lu dul yàlla am nga morom loolu nag du du du dara lu loo xam ne réalité la parce que ñi ci joxe nañ misaal rek boo amee ndey ak baay di diw am ndey ak baay morom ngeen foofa morom nga ci ndey ak baay yéen ñaar ay morom ngeen ci mu am soxna nga am soxna ay morom ngeen ci mu am doom nga am doom ay morom ngeen ci da ngay nelaw muy nelaw ay morom ngeen ci nelaw day yeewu ngay yeewu ay morom ngeen ci ngay lekk ngay lekk ay morom ngeen ca loola kon ki amul morom mooy borom bi subhanahu wa taala yonent bi ci boppam am na morom ci ay yonent am na morom ci ay yonent yeneen ay moromam lañ ci nubuwa gi ci risaala gi kon ki amul morom mutlaqat mooy borom bi subhanahu wa taala moo tax nit ñi buñ doon bàyyi xel ne yi ngay wax ci diine na fekk ne da nga am lay da nga koy amal xam-xam door a wax al ilmu qabla al qawli wal amal su ko defee problème bu bëri doon na faju mais nit ñi dañuy wax lu leen neex euh, jàpp ne diine moom am nga choix ak liberté li ngay wax doo ko jëlee ci yàlla doo ko jëlee ci yonent bi soo nit di ñëwee di wax na nga ne waa ji moo compliqué fekk yow yaa wàcc sa yoon parce que bu fekkoon da xam ba pare door a gëm xam ba pare door a fas xam ba pare door a wax su boobaa jafe-jafe wax ba pare a wut liñ wax ba pare jàpp ne sax li ñu wax dara nekku ci et puis ñu jàpp ne yi am yooyu mën na am am nga liberté am nga sañ-sañu lu la neex wax lu la kii nangam ay nit ñoo fi nekk mi méttil ko jafeel ko mais diine yàlla loolu bokk na ci jafe-jafe xam ne dañ koy dund bu baax a baax a baax